xaal li waay dara ma doon jàmbaar ja bu nu seen wala yaakaar ja bañam ya rey nañ ko fore mun kuufa ñu weddi yàlla gaa ñu rek ko foofa fu mu jullee fa jëm kon seen ñu mal jam fab jaas ñu bett ko daal di koy jam seetala seen yamoo suuna danañu ko rey ci réewum Karbala nun yaa ngi ba bagg naa bi deena lam yoonam sa yaxlamu la siina lam yoonam sa yaxlamu la siina seetal asal noone bil ko tooke mu daldi faat soxna saako sooke ñoo tooke saadiq del tooke baaxir ñoo tooke seydul ahad bin la taayir surtout rasulullahi musal kaasimu bu ñëpp ko am nga ci doomi aasimu taal ñu nekkam ci kawam ca Baxdaad tëj nañ ko ak baat ba mel ni ak raar ñoo xool ba doon waaju noonu daaw da boo gaaw yi nattu asal mooy fukki at ak juróom laan jot ba ñu aw ñu lay ko lu liggéey yi yaa dana nos baay Maaliki doon na xale bii bu tàmmi saa yi te nañ ko yàgg kasam ma ko bu lay wuutu foofa faatu xanaa xamoo laaj soo fi yooyu mbër waxtu taakusaan bu ñu mu taw wetu gaañu fa kuréel yi sant biñ ñu amoon ngay julli xanaa xamoo jaafar doomu yaxyaa te dinañ ko far ko rey jéem yaxyaa mën na mën ko sëy def bu teewaat kii bàyyi ba mosoo fi ko gis rek ko doon yi gaayam kenn mosu la gis. na nga yaa dul xeexiri am na tawa am na tey am naa siri dañ leen a tey daaj sotti mboolem ci yaa toog di jax sotti mboolem gëj yaa abbas borom daal joon fa kaani dañ leen ko far ko rey toog buñ yaa xanaa xamoo ma tur seefu diine moom la ñu génne woon ñu dem ba Chine seetal ko ñu làqoo ci Région ñu jugee Misra daw ba Laskandria ñu fa ko jàpp teg ko foofa te waxtu moo defoon xalifa nekkul a faaw yeeg ne suulu ñoom la ñu def nii kenn wattuulu sa xalamee saa sul yoo kisaan kalaame nañu leen nattu leen saraani soo xalamee premier ci dille doogi ku dakkal ba joon ca buur ya ahmadu anbali ma roon ca ngeen ya ñeneen ci jéem lan defoon ca ko caw téeméer ya subaa ngoon te mosu la yeddi yàlla te mosu la muy yoon wa yaxtan alquran kulla yawmi maa xiyaami mu diima sami ci lii la sax bu muxtasim faatu buur ba ko tëj woon taxul mu yaatu ba muxtasim faatoo ñu xëy fal waasix lu yeesalaat kasoom ba doole farsa. soo hmm. xoolee ne Abu Xanifa ak na Abu Jaafar defee ko xalifa. kon doxalaatal. sii deel muxtaar. téeméer yàlla laa añee kareere. téeméer rakka ñu be alhamdulilah def naa fi la doole wér de. wóoyax tamit quraan kullu yawmi. ndax yaa mi ci la sax ba faatu wóor na baax fi yow jumaatun la war ci ak jaar soo nay imaamu Maalik ñu waxe waaroon ne Maalik bi comme ni Maalik amul karaama te xam ne day ragal ëllëg malaama ziyaada ngir aamin ak maamoon te xam ne di doogoo ci géej aaroon da koo yalam ba xam ne daay dee xam rek daal yëpp ay def xalifa su ngeen demul lii yéen mu ngi ci gaawaan ngeen daal yéen teel a mbiriya amandina amati gayi to hande ɓeɗol ko no français mbiriya amandana amati lalu degon gaye gomon yenen ba misali wana am ci gayi bamba waye français nok no nguur sénégal ñin fetal ñin bugal ci sénégal ñi gën gàddaay faru dem ba faatu ñi joxe seeni ngànnaay ñu ndax ñu yaatu fa lu mu ko brama siise waaw ko pour bañ daan ba kay bu laaj sa def ko ca biir. laa xaw la bi français ñoo génn lamb bi fa réew ñaara. ray di doom yi jàll Fuuta Toor. dellu roy almaami Ali Bookar Ahmadou Sayid jàpp Abdul Xaadir. jàpp rakam ja almaami Ali Bookar Ahmadou Sayid jàppul Abdul Xaadir. ñoo génne arbure ki sàmm ca law foog raasi yëpp penk nii leen waaw waaw. wuli ka joore noon te boo ñoo leen taxal xëy taxawati waaw. raatale doomi buur yi wal raatale si gànnaar taxaw ñu ñaalum ma njee ma dëddu adduna banaa bi waaju aayawal ayam gaa du yaa di tiisu gaay jëf fa yàlla di àddina yi far yi weddi yàlla ki weddi laa jël ahmadul makiyu makiyu ñun yaa ko gën a ne gi mbàkke baari xam nga ma saa nga jaari ndar muy bëgg mel ni gaaru i daal di koy jëlax mu wéy ndakaaru soo xalame yaari guddi ndakaaru bu dégg wax jëmbër mu wax nga daal di waaru saasaka fu saalika nabita wa saalika amiin wa sultaan daal ila jaari bila maahi nasulaki sabanin maahi noonu yaa ko jële foofu yóbbu galwaam sax fa juróom yaari